Mustafa Idda Ayam Bachir Cheikh Thierno Cheikh ci ndeyjoor moom mu féetee ci càmmoñ Chérif Maki féete ci kanam Thierno Yorobaan féetee ci gannaaw man ma téye ci cati mbubb yi rek <laughs> waaw nii la ko yàlla defe alxaaji Idrissa moo féetee ci ndey càmmoñ Cheikh Thierno moo nekk ci ndeyjoor Chérif Maki moo jiite ci ginnaaw. Cerno Yorobaan moo nekk ci gannaaw moo Serif Makee jiitu ci kanam Cerno Yorobaan moo nekk ci Hamidou Yorobaan moo nekk ci ginnaaw ah man ma téye ci seen cati mbubb yi rek fu ñu dem ma ànd ci ak ñoom rek tabaarakallaa kon muy ku baax nag ku dimbale Cerno Cheikh waaye ku dimbale Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Oumar ah kon bu ko Serif Makee yónnee fii man sawar naa ci lool ndax bu ma sañoon ajjuma bu jot mu ñëw yàlla xam na ko waaw yàlla xam na ko ndax sopp ko bëgg ko ak gis personnalité am waaw personnalité am tabaarakallaahu jërëjëf allahuma la adurru fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin yàlla na yegg niw yoon yàlla bàyyi kook ay kilifaam ñu yàlla bàyyi ñoog suñuy kilifa kon alxaaji idrisa kàddu gaangoog bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin wa radiyallahu an al-mujahid al-akbar sahibu rima sahibu safinatu saada Mawlana Cheikh El Hadj Omar Fouti. est-ce que est-ce que amiin amiin amiin wax ji du mën a bare xanaa sant yàlla rek ak julli ci sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan barkeem yàlla na dotteeku ci Mawlana Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiallahu taala anhu di ñaan Cheikh Mouhamadul Bachir Muntaqa Taha bu Cheikh El Omar yàlla yàlla may fan bu gudd wànd ak weer fekkee ko te tal ko tey nag dama am kontaan lool ndax li pulaar di wax yiditoon nelaatoon da nga bëgg far ñu yónni la fa tey dama amoon yéene bu ma xëyee ñëw ziyaar Cherif Makki julli fa jumaa ma ñëw ci Cherif Ibrahima Haydara Tijani def fi xadrul jumaa ma ñëw yëndu ci Cherif ba waxtu bi jot ma ma wax ko fii laa jëm si mu wax ma li mu fi jëlee démb ak burki démb ak li mu waxtaan ak Cherif te li jiitu loolu gis naa ko ci Facebook bi Cherif ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la jotal nuyoo sunu sëriñ Thierno Cheikh bu Thierno Mahamadul Bachir bu Muntaqa bu Taha bu Cheikh Alhaji Omar di sa xarit di sa soppe di sa wëllën di sa wéttalukaay di koo xam ni fi nga ko teg fu ko raw la la teg di am kontaan ci journée bi nga xam ni moo passé ci Wakaam sa taxawaay ak sa péete ak sa wëllëre ak sa jëmm ak sa xadara ak sa yéene bàyyi woo ci dara ba lépp rafet na yàlla la yàlla may fan gu gudd wànd ak la nga doon am am nga ko ba pare yàlla sëdd na la lu jiitu tey jaarale ko ci loxo mag yi ñu jox la ko yor nga ko téye nga ko du yàqu du du daw du daay day yokk ndax Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy radiyallahu taala anhu nga xam ni moom lay wax xulaluhu taqwa min al imaani utul qulubi zinatu tijaani mashrabul ulumi rawdul jinaani xulquhu quraan kooku ku mu teg loxo ba bàyyi la dara deseetu la ci àddina waaye nga jóge foofu dal si Thierno Mouhamadul Bachir mm-hmm. macha allah yow loo war a am rek am nga ko. Aydara yal na la yàlla may fan wu gudd wu ànd ak wér te ñun lu ñu am ci kër Cheikh El Hadj sa conseil bokk na ci ndax ñaar xam na waaye ñett xamul xam nga xam naa loolu jarul wax passé na mais ba tey ñu ngi koy suivre mm-hmm. di ko doxal saa su ne muy dellu ci waat ci sunu xel ñu gën a farluwaat gën a fagaruwaat mm-hmm. gën a laxasuwaat mm-hmm. kon yal na la yàlla fay kontaan naa boo Mm, dama la soppal sama bopp. wallaay wallaay soppala nag ngir jëmmi Thierno Cheikh ak jëmmi Thierno Bachir. Mm-hmm. ndax man aw gannaaw yàlla ak wenent bi ak samay ñaari wayjur. Mm-hmm. aw ma kenn ku dul Thierno Cheikh ak Thierno Bachir. Mm-hmm. lu ma am ñooma fu ma yàgg ma kon bu ma gis mu téye leen bu doon xaj sax dama koy téye waxtu ma la ak doomu aadama waxtu ma la ak shérif. kon sa dara yàlla na la yàlla fay. amiin amiin Haji Imaam Moussa Gueye. Hmm. boroom jaamoo jaam. moo tax ma sopp ko. lool ndax wax ji. li mu woy tawxiid la. Hmm, hmm. waaw boo seetee wax yi li mu ciy wax tawxiid la. ku dégg wolof muy wolof bu set ñun sax déggunu olof waaye dañ cay far as tuut li ñuy wax moom lu yéeme la ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu xadara bi yëpp di leen ziara di teg seen nuyoo ci loxo Chérif Ibrahima Aïdara lii nag. malaanu wasiif la Fez Zawiya Cheikh Rahmati Tijaan Cherif radiyallahu taala Makki dafa ni ma malaan nii comme yaa ngi dem ci Cherif Ibrahima Haydara Tijaani dama lay jox yóbbal bu jëm ci moom mu ni ma yóbbal bi mooy malaanu wasiifa wi nga xam ni moom lañu ñu laloon ci Fez ci zaawiya Cheikhana Ahmad Tidiane Cherif al Hassani radiyallahu taala anhu mu ni keroog ba ma demee foofu dama ñaanoon xalifa bi ñu may ma ci mbalaanu wadifa cheikh yi mu ni mu jox ma mbalaan mii ma dal di ko dagg ñaar benn bi ma def ko ci sama xadara beneen bi ma yónnee ko Cherif Ibrahima mu lal ko ci xadaram ngir yéene bi ma am ci moom ak bi ma am ci moom ak li ma bëggal sama bopp li ma ko ko bëbbee ndax laa yuminu ahadukum hatta yuhibbu li axihi ma yuhibbu li nafsihi ne ma nag kenn doyuma ci kudul yow demal nga taxal ma ko ci loxo Cherif Ibrahima ne ko maa ngi koy nuyu di ko ziyaar di feddali sama wëllëre ak sama cofeel di feddali ni mu nekkee sama rakk ma nekk magam ne xam ni na wéy bu mu gestu lépp a ngi ci kanam yii daal moo doon kaddu yi nga xam ne jóge ci Cherif jóge ci Thierno Cheikh bu Thierno Mahamadul Bachir ak xadara konu Cheikh Alhaaji Omar yëpp ñu ngi lay ndokkeel di la bëggee di la kontaan di la ñaanal yàlla yàlla na la yàlla musal ni yàlla musalee mbaam ci tabaski amiin barke yonent bi sallallahu alayhi kontaan nañu bu baax wax ji du mën a bare xanaa ma tagg sayiduna Muhammad tuuti rek joxewaat kàddu gi ci imaam Moussa Gueye dal leen waaw ndax waxtaanam ñëpp soxla nañ ko ndax moom fu mu wax rek nit ñi dañuy delluwaat ci yàlla xol yi tooyaat ndax nit nag lépp luy tooyal pas-pasam jamono ju ne war nga di ko sàkk kon eh. ko teg foofu la ki la yàlla booleel kooku la mhm. ki nga joxoñ kooku la mhm. kon wéyal ca kanam rek insha allahu taala ku la topp dana am ngërëmal yàlla am ngërëmal yonent bi am ngërëmal Cheikh El Hadj Abdoul Aziz am ngërëmal Thierno Bachir am ngërëmal Thierno Cheikh kon yàlla na la yàlla taxaw Haydara kontaan nañu bu baax géej bi fii nag du dara. bu dul yitte yi rek. dëgg la yitte yi la mais bu doon saam sama sago. dëgg la ajjuma bu ne ma teew fii gisante ak yow saafante ak yow. ndax. Euh, ni ma la soppee ak ni ma la bëggee yàlla rek moo ko xam wa ma shahidna illa bi ma alimna wa kunna lil ghaybi hafidin ilayka rasulallahi ya ajwadal wara wa ya xayra man yanhu ila rabbihi sara Cerno Ndoy yokkal ko tuuti Seydina Muhammad ilayka rasulallahi ya ajwadal wara wa yaa xayra man yanhu ila rabbihi sara nabi lmustafa fa innaka baabullahi lilxalqi kullihim fa min mutafin fadlan wa min mutafin yusra fa innaka sirrullahi waljuudu kulluhu مكسور الجناح لحادث فأنت لي مكسور الجناح به جبرا سيدنا محمد وقد داق بي كل الجهات ولا أرى كريما فأرجو منك كشف الذي ضر جنابك مقصود وفضلك واسع وخيرك موهوب لمن يبتغي خيرا nu ñëpp def nii nu màggal Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Malick بكت العروبة والإفريقية حيرت ساح اليتامى فقدحوا الجسمان أنأت مدينة والزوايا كلها بكنا الفقيد لكونه المنان شيخ الحاج عبد مالك هلاله التقوى من الإيمان قوت القلوب زينة التجان دباغ مالك مشرب العلوم روض الجنان خلق قرآن دباغ مالك أيا من بالخيرات يا سيد الورى وخاتمنا بالأنبياء إذا بالقدر سيدنا محمد دباغ نفهم عند الباب يا صين الورى بجاهكم النت الشفاعة في العصر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في هالة الضيق والعسر سيدنا محمد سيدنا محمد إن حب النبي خالط لحمي وعذامي والدم دون رياي Bachir Mountaga daha Cheikh Oumar mooy xalifatul Moustapha al Muxtaari summa abil Abbaasi wal Gaali wal Faaruqi muntasiru Saidu bu Nuuru wal Makabiyu Cerno Ahmad Oumar maa xafaya Bachiruna waarisun an jaddihi Oumaru wujuhuna بحبه تستبشر مكارم الأخلاق بالجود والبشر تحيده بالسعد والخير تستمر وكفه يعطي وينفق كالمطر وللفقراء والضعفاء والله ينصر بشير متقاداها شيخ عمر مدن وقرا وفضا سحره لولا مخافتي لقلت انه عمر